travers yow ñu ngi gërëm président comité départemental de la Croix-Rouge de Mbacké bi nga xamante ne moom moo yebal délégation de quinze personnes ñu ñëw appuyer Kaolack dans le cadre de la couverture médicale du Gamou 2020 nga gérer communication bi loolu nekk une fonction ou une activité extra Croix-Rouge Euh, dispositif bi nag comme ni ma koy waxee toujours Croix Rouge toujours day nekk à côté de l' état à côté de l' état mooy à côté du district sanitaire de Kaolack et de la région médicale de Kaolack topp dispositif bi nga xamante ne moom la CRD bi lal moom la CDD bi lal euh, bi ñu defee commission technique comme ni ñu amee habitude di ko def. Croix-Rouge participer na activement ci dispositif bi boo ko xoolee sax gisuma benn organisme boo xam ne yi nga autant d'éléments que la Croix-Rouge parce que dans le dispositif on a déployé 347 éléments yoo xam ne ñu ngi en action au niveau opérationnel ñii ñu ngi Medina Baye ñii ñu ngi euh, ci yeneen site treize autres sites yi nga xamante ne dañuy organiser gàmmu spécificité bi ci am na ren ak contexte bi ñu nekk muy la Covid 19 tax na à Medina Baye où dañoo yaakaar euh, affluence bu bëree bëri te lañ yaakaaroon am na parce que y a eu de l' affluence dañoo organiser ay visites à domicile sur la sensibilisation du respect des mesures de barrière loolu euh, organiser nañ ko deux jours avant gamu bi maanaam mardi ak mercredi ci euh, euh, VAD yooyu déployé woon nañ cent soixante deux éléments def nañ ay activité de visite à domicile ci kër yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci quartier Médina Médina Baye Médina Mbaba 1 Médina Mbaba 2 ak Saam ñu ñoo seq gàmmu gi vraiment def nañ tuuru kër yooyu waxtaan ak ñoom vraiment loolu mooy dispositif bi nga xamante ne jël nañ ko euh, tey nag nous avons le volet secours volet secours boobu nag toutes les équipes yi nga xamante ne ñu ngi woon ci visite à domicile yi tey dañ leen redéployer ñu ñëw donc dans la couverture médicale pour appuyer le district fu site am rek. il y a un effectif important de la Croix-Rouge xam ne mu ngi fa toog de jour comme de nuit et en permanence pour assurer li nga xamante ne mooy la couverture médicale secourisme soins de santé primaire ak lépp lu ci topp ba hôpital l'hôpital a été renforcé par une équipe boo xam ne ñu nga foofa di veiller à lépp lu hôpital jànkontal ñu jubale leen ci loolu également ci dispositif bi la bokk waaw euh, prévoir nañu aussi dix éléments yoo xam ne ay ambulancier nañ médecin chef de district heure bu ambulance di départ moom dana informer pour que ambulance bu ne am ñaari éléments yoo xam ne ñu ngi ci biir mun a def les premier secours avant l'arrivée du blessé au niveau de de de la référence waaw muy hôpital muy centre de santé vraiment loolu mooy dispositif bi nga xamante ne jël nañ ko depuis barkaati démb ñu ngi ci vraiment di ci liggéey ba tey jii dañ ko mun nag mun nañ ko euh, réussir nañ ko grâce à l'appui di comité national de la Croix-Rouge sénégalaise vraiment commencé par la présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise madame Bafouba Euh, son secrétaire général le chef des opérations ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore catastrophe vraiment gërëm nañ leen sant leen Gamou Médina bi def nañ ko seen soxla ba ils nous ont beaucoup aidé ils ont apporté beaucoup beaucoup de moyens pour appuyer la Croix-Rouge à réussir sa mission exaltante de service public loolu danañ ci gërëm Croix-Rouge sénégalaise bi nga xamante ne ca bokk mais vraiment parti bi tey ñoom ñoo ma ko defal vraiment euh, sagal ma ci biir Kaolack vraiment autorité médicale yëpp xam nañ ne Croix-Rouge fees na place am fépp fu foo tourné ci dëkk bi rek gis nga Croix-Rouge mu taxaw def nañ ko ba envoyé nañ missionnaire muy Cheikh Omar Sy ñëw na teew mu ngi nii dana am lu mu ci wax moom moo fi ñëwal Euh, le secrétariat général de la Croix-Rouge sénégalaise ñu opération yi vraiment moo ñëw indi appui bi masque desul alcogel desul eau de javel desul vraiment ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax di gërëm également le jeune Moustapha Mamadou Moustapha Ndiaye c'est un jeune du département de Nioro qui a été désigné par la région de Kaolack pour représenter euh, euh, la région de Kaolack au niveau de l'Assemblée générale des jeunes. Il a été élu le représentant de tous les jeunes du Sénégal au niveau du bureau national. loolu taxut mu fàtte base bi mu joge moom it yónnee nañ ñu 2000 masques vraiment ak bu doy a euh, euh, eau de javel bu doy moom it au passage danañ ko gërëm sant ko bu baax a baax def na li mu war a def mais ay temps nit dana dana. xam li mu war a def te du ko def vraiment mention spéciale également à Mamadou Moustapha Ndiaye de Nioro biir intervention bi euh, war nañ xam le également que Croix-Rouge ci suñu liggéey déployé nañ euh, fukki nit yoo xam ne dañ leen détaché ñu ànd ak AMO ànd waa plan international ànd ak waa IMCA ànd SOS ñu gérer xale yi nga xamante ne ñoom ñooy réer muy RLF rétablissement des liens familiaux boo demee ci jumaa ja vraiment Croix Rouge mu ngi ko fa gérer normalement at bu jot nag Croix Rouge rek a ko doon def weet ci lool mais ren ji vraiment euh, waa AEMO ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor loolu ñëw nañ ñun ñu ne leen AEMO yéen a yor loolu ñu fekk si nañ leen topp seen ginnaaw liggéey bi jaar yoon vraiment boo fa demee liggéey bi jaar na yoon xale yaa ngi lekk normal ñu ngi leen ay enregistré normal kenn amul problème pour conclure nag danañ gërëm médecin chef de district gis ngeen moyen logistique bi mu ñu tegal masque masque amul lum ñu joxut ci mas ay sa ay dizaine de caisse alcogel euh, thermoflash véhicule ak carburant lépp la jox gis ngeen oto bi def tour bi yëpp médecin chef de district moo ñu ko jox rien que pour dispositif bi ñu mun ko gérer normalement danañ ko gërëm sant ko bu baax a baax gërëm médecin chef de région moom it moo coordonné toutes ces activités danañ leen gërëm sant leen bu baax a baax préfet du département moo joxe woon instruction pour que lii yëpp am médecin yi topp ci ñun ñu topp ci gërëm nag le khalife général de de de Medina Baye parce que cette année bu ngeen ko gisee croix rouge amul benn problème de restauration ak leneen vraiment euh, bu ma ko waxee sax danañ ne séeréer baa ngi caali mais lépp a doy ceeb diwlin yàpp vraiment tout est ok te lépp moo ñu ko jox. vraiment loo xam ne dund nañ fi ay ati at vraiment mosuñ kaa am gërëm ko sant ko bu baax a baax gërëm le docteur Diop président de la commission médicale du COMAF moom moo jiite commission médicale u Gamou bi moom itam vraiment taxaw ci guddeeg bëccëg pour que euh, condition yu neex yi ñu nekk nii ñu nekk ko site bi mooma loolu ma doon wax ci xalif bi mooma vraiment mention spéciale à docteur Ibrahima Diop président de la commission médicale du fii suñu teewaay du ñëw ci wetu président comité régional euh, bu Kaolack nekk aussi premier vice président national déjà moom jël na ay devant yëpp gis nga wax na ko léegi jël mobiliser lu tolloog trois cent quarante et quelques volontaires ngir ñu participer ci euh, gàmmu gi euh, wax na leen spécificité bi ak activité yi mu àndal du ma ci dellu si mais li ma mën a wax rek mooy ñun dañ fi teew ci turu présidente comité national Croix-Rouge sénégalaise ci turu Mamadou Sonko secretaire général national ak ci turu coordonnateur des opérations Abdou Khadir Thiour ngir àndandoo ak comité régional Kaolack bi nga xam ne vraiment ils sont très dynamiques donc yéen di ngeen ko seen bopp accompagner leen dans le dispositif de la sensibilisation ñoom ñu ngi ci VAD yi ñu ci wax ak population yi ndax kii di gàmm rek kii di pèlerinage wax mobilisation ay nit wax ay rassemblement te dañu nemmeeku ni fi mu ne ak ni Covid bi di wàññeekoo insouciance bi mu ngi gagné du terrain te feebar baa ngi fi ba léegi demagul nemmeeku nañ pays européens yi na mu fay def te nul n'est à l'abri kon baax na ñuy fàttali nit ñi loolu moo war ñëw teew seen ñun sax li ñu mobilisé bëriwul mais ñoom tegal nañ ñu ci ay ndaw ñu àndandoog ñun ci action yooyu ba nga xam ne kër gu ne dugg nañ ko fu rassemblement nit dem am am dem nañ fa lu am lu nekk ci masque wax na ko léegi li ko courage indil mais am na ak jeune bu dynamique bu nekk ci région de Kaolack jàpp ci district jàpp ci ñeneen jàpp ci ngir képp ku ñu romb takkuloo masque ñu joxoo ko takk képp koo xamante ni ki yoru alcogel ñu may la alcogel donc loolu ñoom ñu ngi koy def boobu ba ay flyers yoo xam te ne ay message de rappel moo ci ne ngir nit ñu aussi bañ a bañ a bàyyi euh, gën a bàyyi xel feebar bi loolu moo waral suñu teewaay depuis barki démb ñu àndandoog moom wax dëgg na yàlla mu yombalal ñu liggéey bi yëpp boole ñoo volontaires yi ñu waxtaan ak ñoom ñoom ñu nekk ñu sawar ñu sawar donc bu ñu defaguñ sax bilan VAD yi ñu fi mais gëm naa ne bu ñu ko defee dana jéggi sax lim ba nga xam te ne moom la ñu yaakaar waaw xam nga communauté bi il faut mu am ñu xaw a def nii réticent parce foo fekk am nañu bañ am nañu mais toujours ñun am nañu méthodologie bu ñuy approche volontaires yi sont assez formés xam nañ nan la ñuy aborder nit naka la ñuy waxee ak nit ba nga xam te ne du ñu jéggi dayoo duñ la wax loo xam ne la dépassé mën nañ naxante ak yow ba jàllale sa message te yi loolu def naan tàggat nañ leen ci ba ñun amuñu souci ci côté boobu dina am na ay quelques rares personnes ak yu dul nangu loolu ñu ngi koy tuddee feedback communautaire mais naa mooy dinañ ko exploité ba nga xam te ne bu ñuy yebal volontaire bi ci terrain bi dinañ tenir compte ci li ñuy wax accès plus sûr xam ne booy dem jëlaa leen en compte aspect yi donc loolu yaakaar naa ne tàggatu nañ ci ba yàlla mu ngi ñuy wax dëgg na lépp luñ fi mébét mu ngi koy réussir rapport dañ koy exploité buñ ko exploité feedback communautaire yooyu ma la wax la mu joxe ci information dañ koy analyser xool lan la est ce que dafa jar ñu renforcer sensibilisation ci ban niveau moo koy renforcer est ce que nit ñu ngi percevoir message bi est ce que ñu ngi respecter gestes barrières donc message yooyu à travers les rapports a nañ ko saytu xool lépp loo xam te moo ciy taxawaay bu waree yokku ñu su waree changé côté méthodologie ñu changé méthodologie. Kaolack gàmm na gàmm gu rëy waaye région de Kaolack aussi mobilisé na mobilisation bu rëy wax na ko wax dëgg na yàlla trois cent et quelques volontaires volontaires yi xam nga ñoom kenn fayu leen kenn fayu leen mais gëm-gëm la gëm-gëm la ak esprit humanitaire bu nekk ci ñoom du ñu sonn du ñu tàyyi heure boo leen yeewee ñu jóg fu ñu gis ni war nañ ko wax nañ ko fa donc lu mobilisation bi réer yi ñun aussi suñu partition yaakaar naa ne région ci li ngeen nemmeeku ñu ñu nemmeeku ko am nañ ci taxawaay bu mat a mat boo xam te wax dëgg na yàlla war a leen si gërëm